Dai, di un dono. Dai, dono. Dai, Scuba. tey ñu daje fii pour inaugurer teen bi nga xam ne dañ ko def fii si Njaxate pour mu dimbale te waa dëkk bi ci mbir mi nga xamante ne nit mënuñu ko ñàkk muy ndox nga xam ne ndox moom daanaka moom mooy lépp ci dund doomu aadama bi ci cadre boobu nag ci la benn famille daal di génne seen xaalis financé teen bi ñooñu ñu ngi bokk ci beneen association boo xam ne nekkul Sénégal te association boobu tudd Au Pain et jaar ko ci ñun ñun association Sakku Yiw euh, li tax famille boobu génne seen xaalis def ko defal ko seen papa bi nga xam ne génn àdduna loolu tamit diine la ndax yonent yàlla bi sa alayhi wasallam moom moo digle suñu waaju maanaam suñu mbokk si génne àdduna ñu saraxal ko ndox lépp lu ci loo xam ne nit ñi ñu ngi ko si jëriñu day dem ci waajur yi nga xam ne moo génne àdduna ay doomam defal ko loolu def naa ne waajur wu bëgg na ko am man a génn àdduna say doom bàyyi la xel ba jël lu mel nii nga xam ne moo la jëriñ ëllëg yow ma xiyam defal la ko ngir sa tur loolu lu am solo la yal na yàlla fay waajur yooyu yal yàlla jéggal waajur woo génn àdduna fay doom yooyu nga xam ne ñoom ñoo génne seen xaalis def ko. li nga xam ne moo ñu fi dajale tey nag muy teen bii nii euh, ñun euh, dañ ciy am contentement bu baax a baax ndax euh, teen yi nekkoon nañ fi yu bëri yàqu nañ ba njaxate sax bu robinet tëjaan dañ daan dem di jéggaani teen. mais léegi gis nañ ne teen yi commencé na fee bëri te grâce à association yi nga xamante ni ñoom ñoo fi ñoo fi nekk di ko fi indi la kon euh, mu nekk teen boo xamante ni tamit gis nañ ndox mi nu mu mel duul da ngay root rek benn yoon mu ngacc euh, yéen a ngi dox loo xamante ni luy jëmale euh, dëkk yi kanam la ak loo xamante ni tamit luy dimbale askan wi la ndax yombul nga yore association boo xamante ni li ngay def xaaroo ci dara. waaw ñi nga xamante ni tamit ñoom ñoom la seen ñoom ñoom ñoo la seen papa génn àdduna ñu financé lii nii di wax ne rek yàlla yàlla xare aljana pa bi yàlla yàgg leen taxaw ñoom tamit bañ génnee ay teeni teeni teen. nga xamante ni dina dina fa fekk dina fekk paa bi ak euh, njabootam yëpp. di sant ñi nga xam ne ñoo maye teen bi nga xam ne tiyaabo lañ ci jublu ndax euh, boo amee boo dee am doom ju baax ju la gannaaw di la ñaanal di la defal ay sarax euh, di la dimbale yool boobu yëpp fa laay fekk fa nga tëdd robinet doon nun coupé ñu da roote ji fii fu sëree sëri waaw ñu roté fu sëri bon bu féké né ni yalla dimbalé nañu ñu am téne bo xamné ni mu ngi suñu bët yi da ngay tourner rek fu né ni ñi ñëpp ñu ko wër ku ñëw da ngay jotté pan duy dem sa yoon aji dawli yann yalla jotté len ci yool bi seeni doom défal len yann yalla yëram leen té jéggal euh yeen e, ñi nga xamné ne taxaw li hit ñu ngi di ñaanal yalla yagal len ci kanam njobot gi ñu ngi leen di gëreem ñu ngi di ñaanal yalla ñu ngi leen di ñaanal xubbeeku ak warsak ñu ngi leen di ñaanal fan guddi itam nag ay doom yu baax ñoo koy def di sakku ñaan ci seen i wayjur fa tabarakallah bokk na ci yonent bi alei sallallahu alayhi wa sallam wax nit ki bu fi doogee ay xiwam yëpp dafay dagg ba mu wala du saali parce que doom yu baax a ko def tegaat ko ci wàllu ndox te ndox nag fan yi ñu toll yaakaar naa adduna bi yëpp moom lañ dajee fii Sénégal di wax di xaw ni ngeen ko wax journée de la l'eau xaw ma ah ah journée mondiale de l'eau kon nag teg ngeen place bi ci tegu kaayam waaw ah, ñu ngi sant bu baax di ko rafetlu fi ngeen ko defee te mooy milieu dëkk bi jàkk ju mag jàng ni jàng ni ku fi def teen itam nag defal nga ko peuple bi lépp Eh, waxuma la ñu fi dëkk rek waaye mboolem ku fi romb rek boo bëgg a xewlu rek jël xewlu rek te abu jooju nag eh, yan ko yàlla saxal li nga wax itam nañ ci góorgóorlu ba bu ten bi fekk ba bi bañ koy la rek teen bi nekk bi parce que te abu da leen fekk rek yàlla yomb na yàlla yan ko yàlla def. voilà donc on est alhamdulilah ici dans le village de Ndiakhaté qui est dans la région de Kaolack alhamdulilah on est euh, là pour euh, procéder à l'inauguration du puits qui est dénommé Sadi Ahmed donc le puits a été financé par l'association au pain et au sourire. Bon, donc par l'entremise d'une famille euh, qui a euh, financé le puits pour le compte euh, de leurs parents qui est décédé. Donc puisse Allah ta'ala illuminer sa tombe et qu'il lui accorde de, rentrer haut dans le, dans le paradis. On s'achemine vers le ramadan. C'est sûr que aussi cette eau sera utilisée pour la rupture des gens et que nous prions Allah SWT euh, de prendre tous ces hasanats-là, toutes ces bonnes actions-là et qu'il la déverse pour le compte du, du défunt parent et qu'Allah ta'ala euh, lui, illumine sa tombe. Donc, barakallah fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah.